jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñu amati mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkaarloo ak mbokk yi ñu nii ñëpp di siyaar ñëpp fépp fooy nekk rek fekk nañ la ko euh, jox la loxo di ndokkale ñëpp ci guddi gi nga xamante ni tey mooy guddi Mawlidou Moustapha di guddi gàmm ñu nekk fii nag ci Tiwaawan nekk kër ki nga xamante ni yaakaar naan kenn doot ko présenté muy suñu papa Père As Ndaw borom Ndoukoumane groupe mhm. ndax yaakaar naa ni dëkk bi jamono ji ku ne xam ne ni euh, jus original moo ko lëmbe ak boisson Cobra. <laughs> tey nag ñu ñëw fekk ko fii ci këram fas yéene waxtaan ak moom suñu papa la ñu def lu bàyyi ko mu nuyoo ñu dugg moom ci waxtaan bi. yow nuyu nañ la si alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen wax waaleykum salaam wa rahmatullah di sant yàlla di julli Seydina Muhammad di ñaan yàlla gàmm gi nga xam ne moo ñu fi dajale yiw wu fi waaye bëgg rek yàlla na ko yàlla yombal ci barke alxuraanul karim bismillah macha allah mm. fi ñuy njëkkee yow mooy tey euh, ban yëg-yëg nga am mm-hmm. ci guddi gi nga xamante ni ñu ngi koy waajal mu nekk suba incha mm-hmm. allah waaw yëg-yëg bi nga xam ne mooy jullit yëpp bi ñu am rek mm. kenn ku ne xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam mm. euh, képp kuñ bind rek gannaaw yàlla moom moo tax kon nag euh, ku mel noonu ñëpp nga xam ne bu dee am nañu sëriñ ñun ñëpp mooy suñu sëriñ te moo indi lislaam moom la yàlla yoon yónni moo ñu jox jaarale ci moom alquran mu wax ñu ay hadis jàngal suñu diina kooku dama ne guddeem amut lu mu war a yemal ci àddina moo tax euh, vraiment yëg-yëg biñ ci am mooy bi ci jullit ñëpp am rek kontaan ci di ñaan yàlla yàlla ñu fekk ay ati ati at ñu ñëpp ñu man di ci jaamu yàlla ci barke alquran amiin macha mm. allah mm. ku ne xam na ni buñ ñëwee suba la gàmm mm. euh, sa xarit sa sëriñ daf fi ñëw seet si la tey mu ñëw fi ñu koy siyaar bu baax a baax sëñ Habib si tey mu ñëw euh, teewaayam tey ban yëg-yëg nga ci am ndax gis nañ tey beneen père as ndaw man bu am beneen àll mm-hmm. waaw waaw mm-hmm. xam nga Habib moom comme ni ma koy waxee rek moom yàlla mi nga xam ne mooy boole ay nit moo ñu boole mhm. eh, ñoo bokk sëriñ muy sëriñ Mansour mhm. eh, ñun bi ñu dem ci moom amuñu dix-huit ans mhm. booba samp kër moom itam amul kër dencu soxna dencu ma soxna yàlla boole ñu boobu ba léegi sëñ Mansour itam ci baaxam ak xam-xamam mu yëkkati sama loxo teg ci loxoom ne ko ne ko aas ne ma aas ma ne naa mu ne ma dénk naa la abib abib dénk naa la aas ñu ànd nag ci ngor ak jom ak diina mm-hmm. ak ànd nawle waaye muy nag suma sëriñ di ku baax a baax a baax di ku ma fonk fonk fonk kenn ku ne xam na ne bésu tey bii mm-hmm. eh, gis sa sëriñ sax dafa jafe kon nag sa sëriñ bu déplacé woo ñëw ba sa kër mm-hmm. loolu mbégte mi ma ci am wax dëgg yàlla mm, jàggi na dayoo mënu ma ko wax ni mu toll ci man lu lu rëy rëy la ci man te eh, du benn yoon du ñaar depuis mbooloo mi commencé yokku ñu dem fa siyaara ji leen sëriñ Cheikh na ma aas ah, lii kat xajatuñ ci saal bi xajatuñ ci yoon bi bàyyi ñun ñuy ñëw ci la yabal sëriñ Habib nag muy vraiment bu ñu ne suba lam euh, euh, suba la gàmmu mu ñëw fii ñu def fi takkusaani sëriñ Mansour ñu njukkalee ko ko macha allah mais tey mu def waxtaan boo xamante ni bu am solo la mm-hmm. wax ni sax tey yëg-yëg bi mu am mm-hmm. euh, bokkut ak yam daan am mm-hmm. tey mu mel ni yëg-yëg bi mu am ak waxtaan bi li mm. nga xamante ni waxtaan waaw waxtaan wi moom comme la ma doon waxee am na ko laaj suba ban thème lay waxtaan ma a ko abi moom mm-hmm. lu dul yàlla ne n yonente bi nee bu ñëwee di ko fi wax mm-hmm. ak it euh, jaaj ji ñu ñun ñëpp rek ak mottali kóllëreem mm-hmm. tey wax dëgg yàlla ñëw bu mës a ñëw biyee ji dàq ndax euh, bi teel naa ñëw fi la junee tàkkusaan inauguré kër Mansour ba pare ñëw ci baas bi ñu waxtaan ba waxtaan wi jeex te timis jotul loolu bég bég naa ci lool mais nag euh, bettu ma mhm. Mhm. parce que Habib Sy euh, feebar naa nekk France ma toog mu jógee fii dagg bii ñëw seet ma fa mhm. loolu vraiment moom kenn la ci man Habib moom kenn la ci man moo tax dama wax dama wax ci kanamu ni ñëpp ne ko yow man maay sa dàll waaw man maay sa dàll loolu waxuloo ma ko waaye maanaam gëm gi ma ko gëm wóolu gi ma ko wóolu bëgg gi ma ko bëgg mhm. jàggi na dayoo bés fii xalifa bi woo na mhm. ñu am lu ñu sant mën na xaale ma tàgg ji abi ñu ne askanaa na ngaa def mën a ah, lu tax ñu ne xanaa ne kii moo ma ko may man yilifu ma man abib ma yilif xam nga lu rëy la te abib moom kenn la ci man abib moom mënu ma wax ci man sax wax ju àgg ndax cofeel ak mbëggeel ci moom am na décoration bi mu la tey décoré mm-hmm. mu nekk ñëpp kontaan mm-hmm. tey mu décoré waaw décoration bi cat li day mooy fi ma ko solal nii bu ma ko sumee mhm. am na fu ma koy tëj yaakaar naa léegi ma am ci ñaar fukki mbubb yoo xam ne bu ma ko solalee nii mhm. su ma ko yóbboo kër ga mhm. damay ut walis tëj ba mu fees ma tëj jëlaat beneen tëj ba fees ma tëj dama jàpp ne daal bu yàlla mayee fa wu gudd su ma retraité yooyu rek laay sol waaye li ma ci am man na ñaar fukki mbubu yoo xam ne jox na ma ko am na sax yoo xam ne sëñ Mansour ci boppam moo ma ko jox loolu alhamdulilahi rabbil alamin loolu ñu ngi ci sant yàlla Mm-hmm. mooy nit dafa war a am kilifa mm-hmm. nit dafa war a am sëriñ mm-hmm. nit dafa war a am ndeyam ak bàyyam fonk leen moo tax loolu xale yëpp ñu ngi leen ciy jaajji vraiment ñu am kilifa ba pare fonk suñu wayjur fonk suñuy sëriñ fonk suñu mag ak suñuy rak macha allah duñu duñu jóg te waxuñ ci actualité ndax ku ne gis na jamono ji réew mi nu mel Sénégal ndaw ñi jóg wutali gaal bi ku ci nekk yaakaar ni li nga war a am bitim réew nga ko war a am Hmm. tey ndaw ñi nga xamante ni dañoo jug wuteelu géej gi. Hmm. tey ba amul loolu la ñuy wax loolu la ñuy wax. li ma leen di wax daal xanaa vraiment am méttiitu xol. Hmm. yàlla xam na ne eh, li xew mbuur bi muy xew France sama fekk. mais yàlla xam ne su ma noonu lañ defal loolu sama dënn parce que xale yi xam nga li li tax ñu ñëwee loolu. muy juróoguñu doom waaye doom. ku ko jur ba mu am ñaar fukki at. nga di ci sonn sa yaakaar na ci moom. dëgg-dëgg bu bu bu duggee ci gaal. Mm-hmm. yow coono bi mu lay bàyyee naqar wi. Mm-hmm. même bu àggee. Mm-hmm. ba stress bi mu lay teg. rek loolu daray àdduna jaru ñaareel bi dama ne nit mën na am dara. te du génn réew mi. man mii quatre vingt un quatre vingt quatre vingt wala quatre vingt quatre. laa am visa. sama xarit bi toogoon fii léegi ñu koy Modou Ndiaye am visa ak sama grand frère bi dafa gaañu mu am visa bi ñu amee mën leen xaar leen ma dem su ma demee su neexee ngeen doog a ñëw ma jógee fii dem Bruxelles ma nemee sama xarit bi ma fa fekk dama dem di ko seeti toog këram dix-neuf heures ba minuit mu ñëw bi mu ñëwee mu toggal boppam añ añ boo xam ne alhamdulilah rabbil alamin mu gontaat balaa mu ñëw quatre ma ne fii baaxul mhm. ma okkee billet bi continuer dem Canada. seeti fa sama benn mag fekk mu takk jabar tubaab dund comme tubaab bi. ma ne koy ut xaaj andiwu la fi. ba léegi ma nga fa ñibbiseegul. léegi ma jógee fa dem Hong Kong. bi ma demee Hong Kong jaay bagage yi. yaakaar naa boobu ay franc français yoroon naa ci lu war a mat quinze wala vingt millions. Mhm. ma jëndee ko fa bagage. Ah. ñëw mu ñëw. ma dédouané ko ne xale yi toog ñi ma sama mag yi ma ngi leen toog leen. Mhm. mais comme biti réew. na drogue la ñëpp a fa bëgg a dem. Mhm. ñoom ñu ne ma foog ñu dem ma bu leen dem la ma fa gis jarul ñu ñëw. keneen ki bi ma ko yóbbu aéroport bi mu àggee salaamaaleykum la wax ko ci kaso bi. toog fa toog ba ci kanam ma fexe fexe ba mu ñibbisi. keneen ki dem di liggéey ci usine boo xam ne. Mhm. ay mool la mhm. na ma kat man wax naa ba ñëw waaye bu ma jël si wut seytaane am. maa jógee fii dem Italie jëli ñu bokk toog ci liggéey ci réew mi ba am dara. yàlla wërsëg. fu mu nekk rek. Hmm. boo yëngatu rek yàlla jox la. Hmm. vraiment daal dama ne woon buñ paree gàmmo gi. conférence def presse bu mag laay woo xale yi parce que loolu foog xale yi xam ci li muy def. Hmm. wax loolu xaru la ba pare géej. moo gën a garaaw géej. géej li ci nekk ci luy jommal ni ak luy lekk nit ak luy yàq nit kenn xamul ñu toll am na jën yoo xam ne buñ dajeeg yow buñ dóoree gaal gi mhm. gaal gi day tas day bëri na ci géej gi vraiment ñi ngi ñaan xale yi mhm. nañ delloo si seen xel mhm. toog ci réew mi parce que téye leen état mënu ko seen ndey mënu ko seen baay mënu ko ñoom ñoo mën a téye seen bopp moo tax vraiment ñi ngi ñaan yàlla yal na yàlla dimbali leen bañ mën a toog ci réew vraiment affaire bi moom métti métti métti la parce que man dama bëgg doom mm. te dama bëgg jeunesse bi suñ yaakaar dafa nekk ci yéen moo tax ñu kenn am ci benn ndom ndom ñu ngi mm-hmm. ñaan xale yi yëpp yal na yàlla dimbali leen ba beneen bi ci des état bi dafa war a jël responsabilité mm-hmm. mooy ambassadeurs yi ñu ngi fi mm-hmm. kenn ku nekk xam na ne tukki dem ak ñëw loolu loolu dafa normal. vraiment kenn ñu waxtaan ak ñoom xool ñaata visa lañ leen mën a jox par année. Mhm. ñu xool ñi ko yooyu ñu jox leen ko. ñenn ñi dem ñenn ñi dem déwén ñenn noonu la ak du doxe mhm. mais da ngay déposer. lu lekk sa xaay ñu la may visa vraiment loolu jaaduwul ci mm. loolu jaaduwul mais yal na yàlla dimbali réew mi dimbali ak njaboot gi xale yi yal na yàlla dimbali leen yal nañ ak liñ bëgg yëpp yal na ko yàlla vraiment méttitu xol laa ci am ak méttitu xol xam ne su ma ci wax sax su ma su ma xol bi dafay métti mm. te loolu <laughs> jërëjëf papa mm. waxtaan bi am na solo euh, xam naa ni ku koy déglu dina si jële xam waaye dina si jële jàngat léegi-léegi wax na ko ci ay kàddoom quatre-vingt-un la su juumul ci li mu wax dem naa tukki. Mhm. waaye bi ma demee mhm. gis naa fa. Mhm. waaye bi ma ñëwee. damaa wuti. am bagage yu ma indi. ne sama famille toog leen samay mag samay xarit. loolu rek ku ko seetaan vidéo war na tax. nga toog góorgóorlu. waaye papa da nga nekk tamit sponsor. ci li nga xamante ni moo di làmb mënta ñàkk. gis nga nit ñi nañuy wone lu baax. te di ko jëfe te fii ñu fekk sa kër. bu la neexoon du dugg sax bay waxtaan ak yow. waaye sëgam may nañu ko. Mm-hmm. si coobareem. Mm-hmm. mu dalal ñu. Mm-hmm. man de bi ma dalee dugg ci kër borom alal ba léegi. li ma paa bi def. wallaay azim nit musuma koo def. ñu ngi looy ñaanal oyof boobu. yal na yéen bi oyof. encore fi sëñ bi ñëwee sànq. yal na ko sëriñ ñëpp ñëwee fi. ndax du sa alal rek waaye dafa naa ni yar gi mu am mu baal ma ndax suma ma kilifa la waaye yar gi mu àndal tax na li may wax wallaay daf maa sori. papa nga nekk ci làmb di dimbali làmb. Mm-hmm. ndax ku ne làmb ne jeunesse. Mm-hmm. dafa mel ni. Mm-hmm. ba tey liggéey bi muy wax. mi ngi siy jàppale nit ñi. site internet yi. ku si nekk jox na la sponsoru original ne la wane ko. li ma am ñu bokk. papa foofu laa bëgg nga ñëwee. waaw foofu tamit xam nga ni ko waxee léegi rek. Euh, moo bi ni ma gis ñu defee. boole sport bi ak bi loolu dafa am solo. Mhm. xam nga réew ay ay ndaw ñoo koy doxal. Mhm. te réew mi tey boo leen bëggee bule foog nga fekk leen ci liñ bëgg nga jàppale leen ci. Mhm. moo tax vraiment làmb ji eh, dañ leen di sponsor am na ku ma woo ne ma làmb ma ne ko génnal ci li ngay wax ma ne ko gis nga. amul génn kër gooy dugg. ci réew mi koo xam ne eh, amul kuy si kuy kuy seetaan làmb. ma ne ko sëriñ si sax dañuy seetaan làmb. parce que nag adduna dafa am loo xam ne ci la bokk mm-hmm. ci la bokk parce que xale yi tamit foog boo leen di boo leen di ànd ak ñoom da ngay ànd ak ñoom ci niñ ko bëggee loolu mm-hmm. alquran wax mm-hmm. waaw bil hikmati wal mawisatil asana nit sooy wax ak moom da koy fekk ca nam ko xamee nam ko comprendre nga wax ak ñoom te làmb ji business la comme ne business parce que ñi ñu sponsorisé wax dëgg yàlla. ñun li ñu andi woon ci original bi Cobra bi. Euh, parce que màggalu Tuubaa la jeex. fii tuuti lañ fa indi. Mhm. fii lañ fa indi météo sax dix kon te liñ ci indi woon alhamdulilah rabbil alamin mhm. te it làmb ji bokk na ci li ko doxal. Mhm. Ah, làmb ji bokk na ci li ko doxal kon loolu du caaxaan. parce que ndekem yàlla may na la soo xiifee. ba te amoo loo lekk nga jël me di lekk ko. yaa xaytu mu naa ne loo xam ne mën na jaay man mën a gis li ñuy def vraiment bëri na ci sites yu bëree bëri liggéey nañ ci ñoom parce que jàpp nañ ne mhm. loolu lañ war a def quoi loolu lañ war a def mhm. waa bi Pro Média moom xam naa di nga leen jox sponsor bi incha allah ndax buur sa xarit la sa soppee buur nag buur nag xam nga dañu <laughs> ak Dakar Buzz <laughs> muy nit ku baax a baax ba ku ma fonk ma fonk la waaw ku ko bëgg a bëgg a bëgg laa mhm. vraiment ñu koy ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér-gu-yaram parce que ba ñu àndee dafa yàgg mm-hmm. vraiment te fu ma nekk rek fekk na ma ko muy suma xarit di suma wóolale mm-hmm. xam nga man damay wax ne bokkuma ak nit ñi gis-gis mm-hmm. ci yu bëree bëree bëri parce que man li ñuy wax géer ak géwél gëw ma ko xam nga lu ko gëm oh. kóllëre kóllëre loolu ñoom ñëpp bëri naa ci xarit te it nit ñu ama ama am njëriñ la ci nit gis nga loolu mooy li télévision yi def nii rek parce que ki ñëw wax sa yu baax teg bu lu baax lu nu la xam ne ci yow njëkk papa mm-hmm. mais yooyu daf koy denc waxal la yu baax ya mm-hmm. donc loolu euh, kenn mënu ko fay mm-hmm. te it euh, wax dëgg ko mel ni buur moom yàlla xam ne cofeel gi ma am ci moom ma jaare yàlla taay na dañu xaw gëj gisee parce que euh, jot bi at yi jot gi bëriwul ñu génn biti réew bëri na moo tax mais buur fu ma mës a nekk oh. fekk na waaw suma xaritu bopp am na solo fi may ñëw ak yow mooy sa sa sa collaboration ak ki nga xamante ni mooy Assane Ndiaye production. Mm-hmm. ndax gis nañ di comme yi taxawal ay journée ba léegi. Mm-hmm. gis mm-hmm. sponsor bi nga xamante ne mooy original ak Cobra. ñu gis moom it euh, liggéey bu rafet bi nga xamante ne ko ciy def gis nañ ko ci màggal bi. macha allah mu takk ndiggam. génn di jaay boisson bi. Baol TV chaque jour deux vidéos. te bu ci nekk euh, day dugal. publicité original. waaw xam nga Assane tamit euh, xam nga ñoom dama leen a xam li mbër yi wax dama leen a xam te xamuñu ma. Assane dafa am ñaar yu ma retenir ci moom benn bi mooy diggante moom ay dem Mbodj loolu dafa am solo ci borom xam-xam ku xam dara gis nit sëriñ bi na ko léegi nee na am alal yomb na boo ñemee yàlla suul bukki suulee bukki foo yenn ñu ne waajaa ngi nii na am xam-xamit boo xamee filoog faay rëy làmmiñ mhm. foo fanaan dina waajaa ngi ni mhm. waaye li am solo mooy ànd ak ren ba déwén mhm. eh, te yàquwul loolu mooy kóllëre te dama ko gis diggante ak Aïda te Aïda it di suma jigéen di suñu xarit di koo xam ne ko ki ñu jàngee eh, bi mu yoree ministère bi daf ca def lu lu ne lu ne la ñuy defal foofu donc muy suma xarit moom Aïda ñu ngi koy ñaanal yàlla fan bu gudd ak wér-gu-yaram liñ ko fan ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko ci yàlla jàppale alors léegi Assane cofeel boobu laa am ci moom mhm. yàlla dogal xamante wuñ ba euh, suma benn xarit ku ñuy wax Mohamed Kabango mhm. woo ma boole ma ak moom Malick Thiam mi ñëw fa ma ne ko Assane moom rek su ñëwoon wax ma mhm. yàlla xam na ne su ma amul projet bi sax damay jàppalante moom ci làmb bi mais nag la la ma ca doon wax ma gis ca lu ko raw ndax bi ma ko joxee produit Euh, lu ma wax rek def na ba def lu ko ëpp lu ma wax mu ne ma mbër mi ak mbër mi ak mbër mi mm-hmm. lam ma ca wax day def ba def lu ko ëpp vraiment loolu tam moom it ñu ngi koy ci di ko ci gërëm mm-hmm. vraiment parce que doon xale mm-hmm. teewu la am ngor teewu la am jom teewu la am kóllëre te kóllëre googu yàlla daf koy laaj te yowmal qiyaam parce que daal na dafa wax ne wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula moo tax euh, vraiment Assane tamit comme ni may wax rek li ñu seqoon su ci manqué woon dara mhm. xam naa ko waaye def na ko ba def lu ëpp loolu xam nga loolu vraiment mhm. du lu ndaw lañ doon séntu ci moom rek am na am nañ ci presque ñaaram moo tax euh, vraiment moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla mhm. euh, lépp lu mu dugg rek yàlla na ko yàlla yomb vraiment waxtaan bi am na na solo jërëjëf ah, fi ñu tëjee yow mooy <laughs> ñoo gisee làmb joxee waaw làmb xam nga man <laughs> man bëri naa xamul loolu. yow mii maa la wax ba woon Ndiaye mii. ndeysaan la wax ne ba bëri naa sax ba bàyyi bëre. Oh. nekk arbitre. benn mbër mos a ñëw daan suñu waa dëkk yëpp mën a abal la ma daan. ndeysaan waaw dama bëgg làmb man yàlla ma napp dama bëgg làmb. fi ne nii amul benn làmb boo xam mais bu ma nee biti réew. Mhm. dañ may yónnee lien bi ma di ko suivre. làmb dama ko bëgg. ba pare amoon ci ay mbër. bu mhm. mel ni maam góor gi Njaay bi ma nekkee xaleel moom laa moom laa bëggoon. Mm-hmm. yàlla doog keroog bi ma ko gisee dama dem waxtaan ak moom. Mm-hmm. ne na ba jóge fi. wallaay da ma dogal ko salaire te xamuma ko xaw ma oh. mais moom it mu nekk bu baax ñu ngi koy ñaanal yàlla mhm. yal na yàlla yóbbu ko jamatul firdaws alors que mel ni tey seen mhm. euh, vraiment dañ ko doon supporter bu baax a baax a baax mhm. làmb man maa ko bëggal sama bopp waaw làmb maa ko bëggal sama bopp moo tax vraiment dama ci dugal sama loxo làmb moom dama ci dugal sama loxo incha allah hmm. kontaan nañ ci jërëjëf jërëjëf mais boisson cobra beeg euh, euh, jus original original waaw réew mi de waaw waaw xam nga loolu moom yàlla moo ci dugal loxoom. parce que uh-huh. itam comme li may wax. Mm-hmm. booy jaay da ngay jaay lu baax. Mm-hmm. parce que nit ñi boo leen baax na buñ ko buñ ko mosee baaxul. Mm-hmm. du ñu dellu si moo su fekkee ne lu baax ngay jaay. ku nga xam ne jënd nga ci rek dana ñëwaat. deuxièmement it boo koy jaay mhm. ñi ngi koy jaay nga fexe bañ man cee am dara mhm. loolu it day vraiment boobu yëpp jàpp nañ ci ñu ngi sant réew mi yëpp ñu ngi ciy sant réew mi yëpp jërëjëf mbokk yi boroom naaru góor yëg si na kii tax gannaaw sunu borom bi seen aajo di saafarawu di faju ci diir yu gàtt kooku mooy kan mooy Seydina Ousmane Ndiaye borom naaru góor grand marabout di borom baatin borom xam-xam ak borom xalwa Seydina Ousmane Ndiaye yàlla may na ko mu mën a faj yenn xeetu feebar yu demee ni daaxiliya di ay jàngoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde jabet ndoxum siti ak néew kàttan gi waral tuuru naaru góor Seydina Ousmane Ndiaye yërmande gi mu am ci askan wi moo waral mu fekk si leen ak xam-xam bii ko sunu borom bi may ngir saafara seeni jàngoro rawatina jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci biir néegu sëy looloo waral turi naari góor naari góor garab la buy faj di yokkaale puissance maanaam kàttan moo xam fu seeni at mën di tollu nag ak bépp feebaru suukar bu nekk ci seen yaram Seydina Ousmane Ndiaye naaru góor boroom xalwa boroom kurus mi ngi fii ci Nord Foire à Dakar arrêt 34 jàkkaarloog terrain de basket bi bu dee Kaolack nag mi ngi jàkkaarloog banque CBAO bi Mérina ci wetu daral bi mën ngeen a jokkoo kabineem ci numéro yii 78 582 64 54 wala 76 019 19 19